loolu it Cheikh Mahmadul Muntaxa mi ko woote mbéga ma ñuy ñaan suñu borom mu yokk aw fanam ak wéram waaye it yoon wii mu def ci jàmm teraanga bi la ko nit defaree rek war nga ko mën a ñëw war na ko lii nga ñuy defal neex nañu rawat na nag ñu jot ndigalul sëriñ Muntaxa kon ñaar yooyu yëpp war naa mën a tax ñu ñëpp ñu génn àndandoo dem teeru ji ànd ak yar ak teggin ndax ku xam Touba rek ci yar ak tegg rek leen xame kon ñëpp nañ àndandoo ak yar ak teggin jafe ndigal li ñu ñëpp buñ pare àndaat dem ci jàmm ñibbiwaat ci jàmm ci ndigalul soxna maam Xari Mbàkke wax dëgg yàlla gis na taxawaayam bu baax a baax a baax ci ndigalu sëriñ bi gis nañ taxawaayam bu baax a baax ci liggéeyal sëriñ tuubaa kon dañ ñaan bu ngeen gisee fii ñu nekk tey ji mooy Touba Kanka ñu dikk ci kër sëñ sëñ Modou Waala ngir sëñ Modou Waalo ka ngir def fi waañ tamit ngir dëkk yi nga xam ne si ñoo fi nekk ñoom ñëpp bun maasee bala ñuy dem añ ba pare ñëw ci teertu bi ndax lii nga xam ne si nii moom la fii lañ taxaw fii ñu taxaw ñoom ñooy buntu autoroute à bi képp koo xam ne si dugg nga boo dee génn fii nga génne ci ñoom kon ñoom ànd nañ ceeg mbégte bu baax a baax fas yéene gan yëpp teeru leen berne leen ñoo ko gisandoo fii benn la ci waañ yi am na ñaari waañ tamit yoo xam ne si ne wër nañ ko ñu ngi nekk ci wetu camp bi xam ne si mooy cas gendarmerie caserne bi kon am na fukki waañ yoo xam ne si def nañ ko ci biir dëkk bi bokkut ak waañ yi si mooy waañ yu nekk kër sëñ euh, soxna maam Xari Mbàkke moom sëñ Mourtala nga xam si foofu la doon jàngee kaamil yi togg fi ay laax jo joxe joxe fi ay berne ngir ñëpp maase maase ñaan ci autoroute bi ñu daloo ko ci jàmm ca képp ko ci jaar àgg ci jàmm loolu mooy li nga xam ne si ni moo moo waral bis bi ñu am tamit yeneen euh, association yoo xam ne dañ leen boole andi leen ñu wut ndox ay paquet ndox ñu andi juróomi junni paquet ndox yoo xam ne si dañ koy seral wolbati ko di ko jox nit ñi ngir ku fi dikk doo xiif doo mar waaye képp koo xam ne dikk nga fi tamit lépp loo aajowoo rek nga am ko loolu mooy yitte yi soxna maam Xari Mbàkke mu ne nag moom wóowutiwut ngir wane tendance wala dara boo gisee te seet yi nga xam si moom lañ sonn président Macky Sall moo ci nekk ak Serigne taxa nga xam ne si bañ na ko sama defu ci boppam kon daa woote ngir woote sëriñ bi la jël sof ci wooteem ngir jàppale sëriñ bi ci li bëgg ba sëriñ bi li mu bëgg am ko ba sëriñ si sëriñ Muntaxa Mbàkke bu amee li mu bëgg rek soxna maam Karim na dina am nga xam ni xam ne yéen a bokk bàyyi mu jox la wàccuwaay ci moom jox la cër ñaanal njabootu sëriñ Tuubaa gi yépp yàlla def fi jàmm ak i xéewal président la république nag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 ñëw ci jàmm tali bu mel nii ku koy dalu alxuraan a ko jëkka moo tax mu wàcc alxuraan ngir accident yi bari na pakk yi bari na tali bi neex na alxuraan képp nu ci mën a muccal moo tax maam xarit alxuraan yow mbakke léemu nga léemu loolu mooy wan ni yi fiy daw la sëñ Fallu sa maam waxoon it na ko sa for si dawaale nikk téye ni jàkk bu ne tacc nga di tekk bu ne ŋayi nga di yol ku ko def mucc alxuraan ji nag lal nga ko bala ñoo dagg riba bi alxuraan ji wàcc na ba noppi alxuraan ji mën na lu ne dangaa bëgg rek jaam ñu mucc ndax lislaam bu doonu nag ku ko rey fay sa baay Cheikh Mourtala dañ ko ko sàmmaloo moo tasaari ji ci Afrique ak ci Europe boo demee Italie kër sëñ Bamba nga Rimini kër sëñ Bamba nga Cagliari